ba naan damay laaj réew mi elaaj juuf Diouf ndax mën na yor Sénégal waaw kay ndax am na jaar-jaar waaw kay ndax fi ma jaar ñii laaj réew mi mën jaar nañ fa déedéet ba ñu jàng université ku leen mënoon xanaa El Hadj Diouf leen doon jiite xanaa El juuf Diouf ba ñu jógee université kan moo fi taxawal askan bi El Hadj ñoom ñëpp maa leen njëkk a ministre. candidat Beno yep damay dégg monsieur le ministre xanaa Macky Sall sama premier ministre la woon ñoom ñii ñëpp ma leen jigi xam lan moy état ak gouvernement mo jigi fa nek député té ñom nekk ñu député ba xam luy budget luy assemblée nationale luy loi ba paré ma nek avocat état ñett la exécutif législatif judiciaire man kenn ci ñom ñep ma ci nek ñett yep man kenn je suis ministre suis exécutif député 10 ans législatif que suis ans avocat international kon xam lan l'État, état le droit lan la loi lan le gouvernement dara ma ci ba veux ma bëgg sama réew ba ah ñoom ñëpp kenn ëpp ma ci fit nak c'est réew mu tollu dafa am ak ñu pour tal ko ma taxaw wala ndax nit ñi ñëpp tiit ñëpp a jaaxle mën ne président bi war a indi jàmm ku ñëw pour xeex jàmm ma xeex la ku ñëw pour xañu jàmm ma ma ma tëral la ku ñëw pour indi ay Sénégal ma defante ko yow pour Sénégal yi mën a tëdd di nalaw investisseurs yi étranger ñëw di liggéey di fi def seen i milliards xale yi di liggéey Sénégal jëm kanam waaye band yi fi taxaw di taal Sénégal fuñ toll di taalu Sénégal bëgg a taal sunu réew mi danaa jàlloog ñoom Sénégal yi nelaw bu loolu weesoo nag ginnaaw ma indi jàmm indi xel mu dal ci réew mi dama bëgg réew mi jëm kanam ndax dañu am pétrole am gaz am ñu jàng nag loolu yëpp bu ñu ko boolee senegal réew mu ndaw la damay yokk teer yokk berte yokk leneen yokk liggéey parti travailleur la laa yore parti liggéeykat jox ñëpp liggéey ndax usines yi dañuy jolli la classe ouvrière li nga xam ne moo jiite moo jiite développement am ñun loolu lañ jàng ci Marx ak Engels ñun dañu jàng pour mën a jox Sénégal yi liggéey parti des travailleurs et du peuple PTP liggéey moo tax a jóg parti des travailleurs jox liggéey sénégalais yi liggéey boo xam ne dañ ci am kër mën cee suturlu mën cee tedd man loolu laa bëgg Sénégal jëm kanam moo tax ma nekk président bi nga xam ne dama nekk yaakaaru Sénégal ndax dama wane sama bopp démb tey soog a ñëw yebbu ma leen ba tey ñëw rek ne jox leen ma réew mi dafa am jaar-jaar dama am jaar-jaar te gars yi maa leen mën nag